ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indil na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ku toog ci seen bureau Core T4 Core X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gii leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store, améliorez votre quotidien. المدد الوهاب الذي مثير العادي المالك المكرم المتعدي فاز سعيد بالقران من ددي نجا بما يديم خير سددي فاز سعيد بالقران من ددي نجا بما يديم خير سددي الله من كل كريم اكرم منامه خاد له تكرم حسب له كل كان ماني ولازم لسان للرحمن وجوبي شكر بلا كفران دفع إصاب ما نيران وجوبي شكر بلا كفران دفع إصاب ما نيران الله خير سمد الوباء سبحانه سكن في الرواح ونحن في كلب المنيه من كل شر راسا سنيه مستمسكين بالخياس أحمدا خير الأنام منتهى ومنتدى من قال في أمن الوباء أمنه الله من البلاء من خلا في زمن الوباء أمنه الله من البلاء من خلا في زمن الوباء أمنه الله من البلاء من خلا في زمن الوباء أمنه الله من البلاء والمسائل والفتن والشجر والمسائل sëriñ bi nee na ngeen wax jërëjëfati sëriñ Saliou. jërëjëfati sëriñ Saliou. jërëjëfati sëriñ Saliou. jërëjëfati sëriñ Saliou. jërëjëfati sëriñ Saliou. jërëjëfati sëriñ Saliou. sëriñ bi nee na sant dinañ ku tedd gi bu wér. muy li mu baaxoo def. nee nit li muy baaxoo def saa yoo ko defee daje tàg taw féexu sunu borom sëriñ bi nee na bul ko bàyyi sëriñ bi nee na saa yuñ mosaan ñëw xel xelkom wala lagan nee na buñ noppee dañuy toogaat ci suuf si rek toroxlu tudd yàlla bàkk ko ñaan ci barke borom suuf si suñuy aajo faju sëriñ bi nee na bu ñu gisee boo leen gisee buy ñaan muy bëgg ñépp di ko teewe nee na daa xam ne doomu aadama amul lopp ci dundam ñaan sëriñ bi nee na ñaan ci la lépp nekk te nee kon bis bu yàlla sàkk ñun ñi ngi sàkku ñaan rek naan sëñ bi ñaanal ma lii sëñ bi ñaanal ma laa nee na barab bi gën a gaaw ci nangu ñaan nee na foofu lañ toog nii nee na muy suufu Xelkom nee suuf si nee na jëflante nag doomu aadama ci anam bu ne may ko lu ne ci barkeb Serigne Saliou nee na kon nag Seydina Alioune Kébé nee na ni ko baaxoo defee jamono bu ne nee na nga gaaw une minute rek nga bamtuwaat ko rek bu ko defee mu ñaanal ñu ñu delluwaat ci jàmm incha allah nee na bu déwénee ñu teewe ko te kenn bañ a manqué amin Seydina Alioune nee na nga daaj ko fi nga nekk rek te ñëpp aw ko Baye Zal Serigne Saliou kaysar kenn nga te yaa ni moom sëriñ Saliou maam Saliou kenn nga te yaa ni moom kenn nga te yaa ni moom kenn nga kenn nga baysal kenn nga te yaa ni moom Maam Saliou kenn nga te yaa ni moom kenn nga te yaa ni moom kenn nga kenn nga Baay Sal kenn nga te yaa ni moom Serigne Saliou Maam Saliou kenn nga te yaa ngi moom kenn nga te yaa ngi moom kenn nga kenn nga Baay Sall kenn nga te yaa ngi moom kenn nga te yaa ngi moom Sëriñ Saliou kenn nga te yaa ngi moom Maam Saliou kenn nga Baay Sall kenn nga te yaa ngi Sëriñ Saliou kenn nga te yaa nga bay sal kenn nga dayaa ñuy moom sëriñ bi nee na jotaay bi tàng na metti na waaye nee na bàmmeel moo ko gën a tàng te nee na borom jotaay bi képp lañ fa yaakaar moo tax sëriñ bi nee na tàngoor bi du nekk tàngooru dara ci ñun sëriñ bi nee na sant ji nañ bu wér a wér sëriñ bi nee na lépp mat na. sëriñ bi nee na yàlla sëriñ bi nangu jëf ji amin sëriñ bi nee na kenn ku nekk lay sa yéene. di sa mbébét. di sa bëgg-bëgg. nee na mi ngi ñaan ci barke borom suuf si. yàlla nañu ko sunu borom defal amin nee na boo bëggee gis suuf su amul bàkkaar nee na suuf si mooy suuf su amul bakar nee na suuf nag bu fa kenn mus a def lu naqari saa borom loo fa ñaan lu ne rek yàlla mën na la koo may nee na mi ngi sëriñ ci Serigne Saliou nee na mi ngi dogg ci barkeem nee na mi ngi dogu ci leeram nee na mi ngi dogu ci fi mu toll ci Serigne Touba Xaadim Rasuul nee na mi ngi dogu ci fi mu toll ci jamono nee na mi ngi dogu ci fi mu toll fa yàlla nee na mi ngi dogu ci maqaamaam ak i darajaam ak i tawféexam ak baatinam ak sañ-sañam nee na surtout nag yërmandeem suuf si ñu toog nee na képp ku fi indaale yéene ak bëgg-bëgg ak bëgg-bëgg ci barkeeb suuf si nee na dem yàlla nga ànd ak moom amiin nee na bu ñuy dem rek yàlla na ñu ànd moom nee na sëriñ bi mën na ko te nee na am na yërmande ci ñun. nee na ab taalibe lii rek lay jariñ ab murit boo génnee ci moom ab ndigal nee na dara desatu ca nee na àll bii nu mu soree démb ci guddi ba léegi ñu nekk ci àll bi muy jigéen muy góor lu nekk ñu daj ko ngir dabu ngërëmal ku tedd ki ah sëriñ bi nee na moom miy taxaw dey di ku bëgg nee na di ku bëgg a doon nee na moom daa bëgg a doon ak taalibeem ba tax mu ànd ak ñun nee na ñuy ñaanal rek lu fi waay indi na faju amiin nee na daa am mbokk yu ñëw léegi ci moom ñoom sëñ Lamine Seck ñi mu àndal dañ jóge Thiès ñu ni sëriñ bi ñaanal ñu mu leen barab bii toog fi di ñaan daa wóorul ndax ñaan baatub ñaan ku koy def rek da ngay séntu gàntal ndax looy ñaan lu ne nee ndax looy ñaan lu ne da nga koy laaj da koy laaj ñaan ku bëgg ñu may la mën nañ laa xañ fii nee na dus fi ñaanee dañ fay tibbee hmm. wér nee ñun nekkuñu fi naan ci barab na nañuy ñaan nee na déedéet nee na day tibb ci barkeb Serigne Saliou sànni ñu amin nee na bu ñu demee yóbbaale lépp nee na ku ne li nga bëgg a doon yaa ko xam doon ko rek amin nee na ku ne li nga bëgg a nekk yaa ko xam nee na nga nekk ko rek amin ku ne fi nga bëgg a yegg nee na ku fi nga bëgg a yegg yaa ko xam nañ fa yegg rek amin nee na yàlla neenul yàlla nañ fa yegg de yegg fa amin nee na barkeb Serigne Saliou nee na Serigne Saliou buñ ko xamoon dëgg-dëgg xam nee na dara du nu naqari nee na àll bii li muy sori sori boo dee jaay oto bu rafet boo ñëwee fekk fi ku la ko gën a rafet ko gën a rafet le jaarale ko ci mboy gi ak ci ngeer yi xol bu sedd guy nee na boo dee jaay xaalis fekk fi ku la ko ëppale tëj këram ñëw ci àll bi sol yëre yu oyof nekk ci mboy gi ngir saaliw rek nee na boo dee jaay taar fekk ku la ko bële ne ci àll bi yenn dugub ji di jooy ngir saaliw rek nee na barab boo xam ni looy jaay boo foo demee gis ku ko jënd boo amee xel xam ni borom barab ba du moroom wér na nee na kenn du Serigne Saliou wér na nee na kenn du Serigne Saliou kenn du Serigne Saliou waaye nee na kenn du ñun amin nee na mënuñoo ñàkk sëriñ bi de waaye sëriñ bi mënuñoo ñàkk it li ngeen soxla nee na lu ñu soxla sëriñ bi ngeen koy laaj sëriñ bi lañ koy laaj waaye li sëñ biy def waaye li sëñ biy def nee na ci ñun la koy def wér na kon ki soxla nee na kon ki soxla ak ki koy jox ak ki koy jox mën nañoo ànd nee na kon fii taw féex rek lañ fi yaakaar dañuy rafet njort dañuy rafet njort ab jullit day rafet njort day rafet njortu tey dunda yaakaar tey dunda yaakaar duñ ñëw ci barab bi duñ ñëw ci barab bi ngeen liggéey ba ñàkk ñu liggéey ba ñàkk dem noonu dem noonu te toroxluwunu tàllal suñu loxo tàllal suñu ko nee na kon nag nan am tawfeex rek amin xel koom moom xel koom la rek ku ko xamul it dégg nga ko suuf su xel koom neexalul kenn lu fi waay bëgg rek te amoo ko rek seetal sa bopp seetal sa bopp. da ngaa amul connexion da ngaa amul connexion. ku amul connexion nag. ku la woo ku la woo du la jot. te koo woo te koo woo doo ko jot. lay tax nga ñàkk connexion lay tax ñàkk connexion nag nee na nga xool ko. da nga koy daw da nga koy daw. di am connexion fexe di am connexion. wax ji xóot na de. day connecté wu. nee na nañuy connecté wu nag. ci wifi bu nu moom ci wifi bu moom. parce que boo dee connecté wu. nee na que boo dee connecté ci fiib jàmbur te amoo code ba doo jàll. nit ku nekk nee na bu ne. nay connecté wu nay connecté wu. ci wifeem nag nee na wifi nag lu sob la lu sob la. boo koy bës rek boo koy mu lay wan mu lay wan ñi ko am ñëpp. xàmmeel ba nga moom xàmmeel ba nga moom. mat a bàyyi xel bi nee lu mat a bàyyi waaye boo def waaye boo dee def yu fi boo gis rek jàpp ni war nga caa mën a connecté wu nee na da ngay daal di juum nag boo deful attention di nga connecté wu ci borom wifi bu ñuy wër ngir daa connecté wu ci lu mu warata connecté wu sëñ bi nee na loolu lu mat a bàyyi xel la sëñ bi nee na loolu nag bu ñu ko waxee mooy saaliw rek ci xol nee na leneen xaju ca nee nañ ci bàyyi xel bu baax nañ ñaan yàlla fekke ko déwén amin at bu jot ñu di ko teewe rek tey gën a am kattan nee na ab murid du noppalu guddi ki gën ci ñi yàlla bind guddi ki gën yàlla bind nee na mi ngi nii ñu dëtmal alxamis la ay fan yu néew ci topp te lenn nag lu dox suñu digganteeg lu ñuy jariñ lépp lu ñuy jëriñ lépp lu ñuy jëriñ na teew rek ñu jëf ko nay suba sax nay suba sax nday ngoon sax bu gàmm gi doon ngoon mel na mu war a mel ñu xëy lagan ñu xëy lagan mu mel na mu war a mel ba yomal xiyam amiin nee na dara duñu gàllankoor ci liggéey sëñ Tuubaa amiin nee na fu ñu siggee rek sa gat fu ñu siggee rek sa gat ku siggi sa goo saytaane sëgg siggil la